est ce que loolu tey mënul indi suba ay préjudice ci yenn candidat yoo xamante ne seen parrainage su jàllul ñu taafantaloo loolu naan waaw clé bi ñu ma joxoon moo baaxul wala naan waaw xam nga parce que déjà waa Gëm sa bopp commencé nañ ci communiquer. waaw on salue au passage déjà euh, Guèye Lula Girard. waaw qui déjà te un ami. Hmm. mais xam nga euh, parrainage bi dama ko yàgg a kaas si plateau bi te yàgg naa tey am naa dëgg sax si waa Gëm sa bopp ndax waxoon naa ne ne euh, premier combat wu affaire parrainage bi mooy fichier. Hmm. bi nga xamante mooy fichier mais Papa donc moi li ñu wax sànq man yow do comprendre lutax gars combat yi war combattre duñ ko combat ci combat politique la nek ak combat opinion bi alors amna combat yu gën taxaw moy li ñu ko fexé ba lijjanti ko vous vous rappelez que si dialogue bi bi Macky Sall woote dialogue. wa PDS dañu defal seen benn mémorandum ne joxe seen condition leer. rappelé nu la la ñu waxoon dañoo ne woon dañoo bëggoon balaa ñuy commencé def ñu def li nga xam euh, vérification du fichier électoral. parce que il y a beaucoup d'anomalies il y a beaucoup d'erreurs mais kenn le si wa PDS kenn faalu si waa PDS. parce que intéressé wu la est ce que nekkul tey l'histoire se la trappe nag léegi boo si fichier bi ma ne leen fichier bi foog ngeen xool ko parce que fichier au moins boo jàng toute informatique bu la avec des erreurs chaque fois que vous déposez votre nom les erreurs reviennent chaque jour au galop c'est-à-dire un exemple tey Bamba on l'écrit avec B majuscule A M B A soo ko B minuscule wala nga def ko avec 2A ba ma avec B Bamba 2A saa boo dugalee ben A avec le koy parce que c'est le fichier. c'est le fichier ouais. Tay boo ñëwee tay si wàllum doublon yooyu est ce que réellement DG ça a beau kenn mi ngi koy jox ay motif parce que doo xam tay nan ngay joxe motif yenn saa si am na xam aucun motif parce que fichier il faut compliqué mais aussi dugal ay il faut compliqué parce qu'il y' a des problèmes de doublons il y nga xamante ne euh, euh, problème de tranche parce que fi ngay parti mooy il faut ñu jàng la politique te bu ne ba université am li nga xamante mooy euh, faculté des sciences politiques mooy il faut ñu jàng politique ñu koy defee mooy dafa am yoo xamante ne bu nekkee combat boo war a mënee appelle un expert ex électoral mu expliqué la yow aussi nga préparé parce que heure yi nga wax nii si waa gëm sa bopp dina am ñeneen ñu defaat après nag qui va les croire et li ñuy wax li ñuy wax bu jaxasoowee ba ba jaxasoo kan ngay gëm ak ko du gëm c' est ça le problème des sénégalais. ñu ñëwaat ci benn xeex boo xamante ni opposition bi dañ ko doon xeex muy ministre de la justice Antoine Félix Diome ñu ne mënul organiser ay élections parce que bouton Macky Sall la. waaw Macky Sall changé ko indi fa Sidiki Kaba bi nga xamante ni c' est un avocat international ba pare bokk ci droit de l'homme ici Sidiki Kaba ñëw tey ñu ne ñu Sidiki Kaba mënul organiser ay élections transparentes et libres ban jàngat nga ci am te yaakaar naa ni jamono ji est-ce que gëm nga ni mën nañu sàcc ci élection Sénégal suñ ko mënoon sàcc est-ce que APR dina am quatre-vingt-deux députés Yewwi Askan Wi am quatre-vingts députés. waaw mais mais mais mais mais mais wax la sàcc élection am na ban élection la mos sàcc au Sénégal. non fan yii dégg naa. waaw waaw non non non mooy li ma la wax c'est-à-dire ah. c'est-à-dire Tange le combat que nous devons mener le combat que nous le combat le combat que nous devons mener c'est tout simplement de dénoncer ces malfaiteurs ces manipulateurs le combat que nous devons mener c'est de dénoncer ces faux influenceurs qui manipulent l'opinion Taj je me ne de combat mais il y a des gens qui ont été ne manipuler waxuma kenn ki sa cent mille fa sa mais dama ne ah. buñ tolé di wax ci ñepp Sénégal dinañ dégg ñu né élection dañ koy mais kooku dañ ko war nous entendre ko ne ko andi ay justificatif yu ma ces élections passées ont été volées tout le Sénégal ne élection ko ce que rek parce que parce que opposition bi nañu ou bien parce que loolu la

ku mënul am parrainage ku am jafe-jafe parrainage waaw nooy mën a gagné Sénégal lëmb dëgg lu ma de ku mun a ku am ay jafe-jafe parrainage temps déggoo fi ñu ne dañoo am problème parrainage déggoo ko fi yow déggoo fi ay leader politique yu ne dañoo am mm. na fi ne nee na am na bañ a parrainé ma ne la kii nga xamante ne mooy Pape Diouf Fall génn fi ne dañoo am problème waa waaw ñu mënul am parrainage mën ngaa gagné Sénégal mais boo mënul gagné Sénégal amul wax dañoo sàcc sama élection est-ce que du Ndiaye vous nan xam élection xam élection est-ce que c'est pas encore un système de manipulation parce que vous gis municipale en janvier 2022 gis élection législative wax élection je te dis. man que Sénégalais que il faut éviter une chose. il faut éviter cette campagne virtuelle que nous menons ñi nekk ci réseaux sociaux ñëpp ay Sonko ay photo ñu nekk si photo eh, si réseaux sociaux naan non ñëpp Amadou Ba la ay photo ñu nekk si réseaux sociaux naan xoolee seen profil lépp ay Bougane moo ne la am na ñoo xamante ne est-ce que vous savez une chose je vais vous dire di nga mooy am cinq profil mooy am cinquante compte te kooku boo def naan dëgg li nga xamante ne mooy amul sa carte électeur parce que carte électeur bi nañ fa non Nous devons dénoncer di manipuler opinion nous pouvons voter les vrais électeurs se taisent Quand bu vous nous ne vous politiciens nous politicien bu élection d'accord